mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ci ndigalul sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général kul murit yal fi yàgg lool te ànd ko wér Ahmadul Muxtaar Mbàkke xalifa Daarul Xuddoos ak mboolem njabootu Cheikh Moustapha al Karim gépp sëriñ Moustapha Mbàkke moom sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar jëwriñu Cheikh Mouhamad Lamine Baara Mbàkke ak mboolem njabootu Cheikh Mouhamad Lamine Baara Mbàkke gépp sëriñ Abdul Karim Mbàkke Mbàkke moom sëriñ Abdou Aziz njabootu sëriñ Abdou gépp kilifteefu sëriñ Abdou Aziz Mbacke moom sëriñ Moustapha Abdou Aziz mbokki jullit yi mbokki taalibe yi su ngeen gisee jataay bi xam ni waa daaray internat xidmatul xadiim ci njiital sëriñ Mame Bara Mbacke ñoo leen fas yéene woo ci bis boo xamante ni at mu jot dañ koy amal muy tari alquran boo xamante ni at mu jot dañ koy amal fii ci Touba Daaru Tanzil bis boobu nag kañ la mu war a nekk le 12 octobre di bisub samedi maanaam fukki fan ak ñaar ci weeru tubaab ci weeru octobre mu ci woo mbokk jullit yi di ci woo mbokki taalibe yi xarit yi ak wëllëre ak soppe yi bis bi nag at mu jot dañuy tànn kenn ci waa kër Serigne Touba yi jagleel la ko ren ji nag ñu jagleel ko jàmbaar ja muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yàlla nañu ko suñu borom fayal. mu mel ne Cheikh Mouhamadul Amin di sëriñ Bara Mbacké mii lu mu seqoon ak maamam sëriñ Abdoul Khadim bi mu amee yéen ju rëy ji naal bu rëy bi waxtaan ci ak moom mu ñëw ñaanal ko ci tegal ko xeer tàmbali liggéey bi. cër boobu ak matal kóllëre tax na lépp lu mu yëkkati ci daara ji dana ko ci cëral moom sëriñ Abdul Xadim moom Cheikh Mouhamadul Amin kon ci turu sëriñ Modou Bara Mbacké ak njabootu sëriñ Abdul Xadim ñi ngi yëgle bis boobu di ci woo mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yëpp képp koo xam ne liggéeyal Cheikhul Xadim yitteel na la ci alquranul karim ñi ngi dee woo ci bis boobu di ñaan sunu borom tabaraka wa taala képp ku ci teew yàlla na sunu borom fas ay aajo barke Cheikhul Xadim ñi ngi di leen ci woo muy bu tedd alxuraan di téereb yàlla bu tedd bi nga xam ne moo folli mboolem téere yi ko jiitu woon bàyyi ko asamaan te benn téere du ko folli ba ba bis alxuraan di téere bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon ne sunu boroom am na ñoñ ci biir nit ñi ñu laaj ko ne ko ñan ñooy ñoñ sunu boroom mu ne mooy ñoñ alxuraan kon jotaay bi mel noonu mel na ne ku ci woo nit kan ci woo moo la moo la war a sant moo la war a delloo njukkal muy bis bu rëy ci ñun bu ñu fonk lool di sàkku ci mboolem jullit ñi képp ko ko man rek nga teewe ko képp koo xam ne alxuraan yëkkatiku ak ak ak jëmam kanam sa mbégte la ñu ngi lay woo ci bis boobu di ci sàkku sa teewaay. di sant bu baax a baax a baax nag sëriñ Mame Bara Mbacke mi nga xam ne. mooy kii woote jataay bi muy jataay bu ama am solo ndax lii rek moom li ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam day wax ne boroom xam-xam yi ñooy seeni wuutaanu kon ca mel ne ne ñi nga xam ne dañ leen di tudd tudd sëriñ tubaa lii rek jàng ak jàngale rek leen donn ci Serigne Touba mooy li kon moom bi mu xamee loolu def ko mu di aw sasam njabootu mu Mouhamadul Amine Baara Mbacke gépp am nañ am na amee nañ ko cant amee nañ ko ngërëm ndax lii kat njaboot gi yëpp ñoo fi waroon toog di ko def ndax mooy seen ndono waaye ñu am ci ngant moom mu wuut leen fa di leen ko defal kon njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm te yonent bi alayhi salaatu salaam dafa waxoon ne bala ngeen a tabax jàkka yi na ngeen tabax jàngukaay yi ba pare ca loolu ci la sëñ maam Bara Mbacké nekk kon nag njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal ci barkeb Serigne Touba barkeb Cheikh Mahamadou Lamine ak barkeb maamam yëpp ak barkeb alxuraan fu mu bëgg a yegg daar ji yàlla na ko fa suñu borom bu yeggale di leen woo ci lan ci woote bi yàlla muy bisub tarib alxuraan boo xam ne daayira euh, daara internat bu sëñ Maam Bara Mbacke bi tudd xidmatul xadim ñoo koy def fii ci Touba Daaru Tansil di nekk le 12 octobre incha allahu rabbi ren ji nag ñu dara jaale ko kan mooy borom alxuraan di Cheikh Abdoulaye Lahat mi nga xam ne mooy sunu yaakaar yi tey ak kon ci tur turu sunu waajur yi ñu ngi woo mboolem daara yi alxuraanul karim yëpp fépp fu waay mën a ne nga ñëw ànd ak sëñ maam Bara Mbacké ci bis bii. nu nga xam ne ñooy parents d'élèves bi si soññee jëmale ko si wàccaayu bis bi kon nag maa ngi soññ sama bopp du soññ képp ki nga xam ni sa doom mas naa aw ci daara ji bi ko sëñ Balla taxawee ci 2002 ak léegi képp ki fi sa doom mas a aw ñoo ngi lay woo te di la soññ ci bisib taru alxuraan bi te xam ni kat lii kat ñun ñoo ko waroon def ñun parents d'élèves yi sëñ Mame Balla mi dafa nekk ci bopp ba ah waaye nun la waroon ndax nu la suñu borom dogalit ñu jox ko suñu njaboot la gën tey ak ëllëg mu def ko seeni dënn kon nag ameel nañ ko njukkal njukkal bu ñu ko ameel nag war nañ ko feeñal suñu yéene si bis bii ñoo ngi ci soññ bépp waajur wu góor ñoo ngi la siy soññ nga jàpp si te teel see ñëw ba lépp tege si yoon. di daayira xidmatul xadim yi ñi leen di woo si njiital bu baax jëwriñ sëriñ suñu yaakaar suñu tey ëllëg suñu sëriñ Maam Baara Mbàkke ñu ngi woo daayira Dakar si njiital du Diagne di woo tamit daayira Ndar si njiital Kader ñu ngi koy woo si bis bi di woo tamit daayira Kébémer ñu ngi leen di woo si bis bi njiital sëriñ Maam Góor di woo tamit daayira Daaru Tamsir bu baax ñoom it ku ne xam na ne bis bi mooy seen bis muy si njiital sëriñ Mor Sène te ku ne xam ne ñoom it taxawaay bi fi taxawaay ku ne xam nañ ko kon nan na ñu ngi si woo mboolem fédération daara yëpp si njiital Seydou Diagne te ñu gën a góorgóorlu bu baax taxaw bu baax liggéey bi ni ko sëriñ bi bëggee ñu taxawee kon noonu ndax ku ne xam ne bis bi dafa ñor sëriñ bi te sëñ bi yàgg na ko dox saa su nekk mboolem taalibe yëpp tamit dagg si yitte kenn ku ne def si addee kenn ku ne def si sa ñaq kenn ku ne jaandi sa doole kon it bis bu ñëw na nan ko waajal baax a baax fu taaliba nekk ak fu ku sopp sëriñ bi ak foo mën di nekk na nga jàpp sa bis bi te def ko sa yitte ndax loolu moom mooy yitte sëriñ bi. di soññu mbokki parents d'élèves yi di leen wax ne bés bi ñëw na ba pare le 12 octobre la incha allah di ñaan yàlla mu yóbbu si jàmm ñu dugg si bisimilah rahmaani rahim génn si alhamdulilah rabil di woo soxna yëpp rek di leen wax ne bés bi ñoo ko moom suñ bés la nañu teel a ñëw. jàpp ci bés bi jàpp si lépp loo xam ne nii dina taaral bés bi ak lu koy jëmmal maa ngi si woo soxna jaara yëpp rek ak góor yàlla yi nga xam ne ñooy woy juru ndongo yi ñu ngi ñaan ñëpp ñu teew ci bés bi ñu teel a ñëw teel a def farata ji rek àndandoo ak maam Baara Mbàkke teral xale yi nga xam ne ñoo mokkal arxuraanul karim te ku ne xam na ne maam Baara mi ngi ci li maamam nekkoon kon dañ ko cee war a jàppale bu baax ñu ngi ciy woo mbokki jullit yëpp nag bis bi nga xam ne dañ koo jàpp samedi le 12 octobre ngir fas yéene ci teral ak sargal ñi nga xamante ni bi ñoo mokkal alxuraanul karim ci biir daara ji mu toll ci ñaar fukki nit ak benn bis boobu nag ñu tuddee ko jàmbaari lislaam ju ju màgg ji di sëriñ Abdoulahan Mbàkke mi nga xamante ni bi daa dëkk woon ak alxuraanul karim te teral alxuraanul karim ba dëkk ak alxuraanul karim eh, bis boobu nag ñu jàpp ko ci samedi le 12 octobre boobu ñu ngi ciy woo li tàmbalee ci njabootuk Serigne Touba gi li tàmbalee ci Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadul Mourtala di di ko di ci woo ci nga xam ne njabootuk Serigne Cheikh yi nga xam ne ñoo toppoon Serigne Touba Xaadim Rasul ki njëkk a jébbalu ci Serigne Touba ba ca ka ci mujj. di ci woo ñi nga xamante ni bi ñooy waa raabitatul madarisatul quran ñi nga xam ne ñooy yor mbootaay daaray alquran yi ñu ngi leen di woo ci bis boobu di woo képp koo xamante ni bi alquran yitteel na la ñu ngi koy def nag fii ci Touba Daaru Tanzil fas yéeneen ci tari alxuraan waaye nag fàttaliku ci suñu jàmbaar ja Serigne Abdou Lahad Mbacké mi nga xamante ne bi dundam gépp da ko jaayante woon liggéeyal suñu borom tabaaraka wa taala waaye liggéeyal ci Serigne Touba Xaadim Rasul kulli yati sarmadan fal xalqu lillahi